الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها المسلمون إن الرمضان أيام معدودات وفرصة صاخنة وإن اغتنام هذه الأيام لدليل الحزم وإن انتهياز تلك الفرصة لعنوان الأقل ذلكم أن الوقت رأس مال الإنسان وساعة العمر هي أنفس ما عني الإنسان بحفظه فكل ساعة من ساعة عمرك قابلة لأن تدع فيها حجرا يزداد به سرح مجدك ارتفاعا ويقطع بها قومك في صابغة باعا أو زراعا بقيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokki julit yi sunu borom subhanahu wa taala moo wax ak ñun ci qur'anul karim mu ne ñu weeru koor ayyaamun maadudaat ay fan la yu gàtt ay fan la yu gàtt kii wax ak yow ci mbir di la yëgal ne mbir mi day du yàgg lu néew la wala lu tuuti la wala bëriwul kooku bëgg na nga bàyyi xel lii ñu lay wax pour nga def ci yitte sunu borom daf ñu ne maa leen sant ngeen woor kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun waaye mu ne ayaamum maadudaat ayaamam maadudaat ay fan la yu ñu wàññi mu nekk ñaar fukki fan ak juróom-ñeent gën ngaa bari fanweeri fan du ko paase comme dafay paase mu nekk lu néew ñu bëgg yow jullit bi nga bàyyi ci xel ba bul ci perte benn seconde bum ko bul ko perte mbokk jullit yi yéen ñi dëkkee gox bii weeru koor daaw ndax amul ay jullit yu ngeen woorandooloon ren ana ñooñu ndax yéen ak ñoom yéen a ngi woorandoo déedéet ñoom bàyyeekoo nañ fi dem nañu àllaaxira ren wooruñu ànd ak ñun ñun ñu nekk ci jumaa ji ndax déwén kan moo xam ndax weeru koor dina ko fekkat looloo tax nit ñi war a waaj xam ne li yàlla di wax mooy dëgg suñ ko gëmee buñ ko gëmul buñ ko nangoo buñ ko nanguwul ku perte mooy ki fekke weeru koor te fexewul yàlla baal ko yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam dégg yéeg ci min baram juma ajjuma mu ne amin amin amin mu daal di toog bi mu paree saxaaba yi daal di koy song ñoom melu ne woon ne nun tey rek ngay gis ci lislaam nit lu la neex nga def lu la neex nga wax kenn du la laaj foo ko teg waaye démb diine lu nit def balaa sa tànk bi nga koy talal wala nga koy lem di nga wax lii nga teg lu tax lii nga def lu tax nga def ko mais tey nag ku mu neex lu la neex nga def parce que diine ji moo amatul kilifa diine jee yàqu diine ji lañ nit ñi def fawukaay lu neex nit lu mu xalaat rek bu xëyee suma organiser ko ci biir këram wala organiser ko ci péncam woo nit ñi du yem sax ci loolu waaye day woo nit ñi kaay leen ci sama mbir mii bal sax daf koy tasaare waaye démb diine lu nit def balaa ngay buuse di nga wax lii nga def lu tax nga def ko Muawiya dafa falu nekk xalifa jullit ñi ak jot mu dugg ci kaaba gi fu mu romb rek teg loxo fu mu romb rek teg loxo Ibn Abbas ne ko waaw Muawiya yow gis naa la ba duggee fii ci jumaa ji ba léegi loo romb laal mu ne ko Ibn Abbas ndax fii di kaaba gi ndax am na fi bërëb bu amul barke allahu akbar xel li mu tontu mooy xel li mu nangu mooy kaaba gi lépp am barke ndax yow Ibnu Abbas kaaba gi gis nga ci barab bu amul barke loolu tax lu ma romb teg sama loxo mu ne ko wax ji du loolu de ki la gën gën li yàlla bind dafay duggoon te tegu fi ay loxo benn barab la fi laaloon muy xajaratul aswad moo tax Omar yonent génn àdduna Omar ñëw ba ci xajaratul aswad seen xeer bi mu ñuul mu ne ko alimtu annaka xajar la tadur wala tanfa wala lam ara rasul sallallahu alayhi wa sallam yaqbiluka ma qabaltuka qat wallahi xeer kese nga doo jëriñ doo lore su ma gisul woon ki gën ci xeer wi di yonent bi di la foon duma la foon daal di xeer foon bi dem yoonam kon ndeke diin dafa am dalil du tey rek li xew ci àddina bi jàpp diine ji pëcc daf ko diine pëccxu ku nekk rek lu sa xel nangu loo taarlu rek nga jat indi ci diine ji dëmbal ci loolu tax diine ji kenn xamul lu muy nuru caaxaan foo yi sabar yi ndënd yi lu nekk tey da nga koy gis ci lislaam ay jullit dañ lay romb léegi di faw yi xoolal démb war xaw ma barki démb gis naa ci journaux yi xaw ma dama fàtte benn kilifa mu ne ñun ñun dannu tere woor dannu tere julli ñun ku bokk ci ñun amoo droit def ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dama fàtte journal bi waaye mbokk yi ku bokk ci lislaam laa wax lan lan la sant ku bokk ci lislaam waxuma ku bokk feneen de ku ne laa ilaha illa allah muhammadan rasulullah lan lan la sant lan lan la sant yow moom ne laa ilaha illallah loolu tax yéeféeri démb yi ñoo gën a dégg jullit yi tey diine ndax yéeféeri yonent bi daf leen waxoon wax leen laa ilaha illallah ñu lànk ne ko mukk duñ ko wax lu tax parce que xam nañ baat bi lu muy tekki xam nañ boo ko waxee kenn amatul droit di la gis ci ay caaxaan kenn amatul droit di la gis ci ay po kenn amatul droit di la gis ci li la neex baat boobu dong la yonent bi wax leen ne laa ilaha illallah qulu laa ilaha illallah tuflihu ñu lànk ne ko xam nañu foo ñu bëgg a yóbbu ñoo bañ mais tey xoolal jullit ñi laa ilaha illallah boobu fan lañ koy def ay xiin lañ koy booleel ay ndënd boole koog jigéen ñi ñuy fecc ba 4 heures du matin di fecc laa ilaha illallah àndul ak sabar àndul ak ndënd àndul ak ay caaxaan kenn war ko dugal ci ay soirée kenn war ko booleeg musique yonent yàlla Moussa dane yàlla xamal ma benn baat boo xam ne bu ma la ñaanee nga may ma yàlla ne ko waxal laa ilaha illallah mu ne yàlla ñëpp a ngi koy wax loolu ñëpp a ngi koy wax yow yàlla yàlla ne ko Muusa bu ñu jëloon asamaan yi juróom-ñaar jël suuf yi juróom-ñaar teg ko ci blanche jël laa ilaha illa teg ci beneen blanche bi mu ne la maalat ilayhinna laa ilaha illallah laa ilaha illa dina leen daaneel mais nit ñi ñoo ko xamut mbokk yi weeru koor ayaamam maadud ay fan la yu ñu lim bëriwul yonent bi ne la yàlla baax gi mu baax bëgg bi mu la bëgg looloo tax muy ni la weer koor pour nga mu pour mu jéggal la say bàkkaar yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax mu yëkki minbar bi mu ne amin amin amin sahaaba yi bu mu paree sahaaba yi wër ku ne ko yow li nga def tey day musuñu ko gis tey def nga loo xam ne ñun musuñu ko gis xamuñu ko mu ne lan la ñu ne tey bi ngay toog ci minbar bi minbar bi yonent bi es- ñetti escalier la woon wax nga amin amin amin amin mu ne waaw jibril moo doon ñaanal alkande ñetti nit ma koy nangu xam ngeen jibril ki yàlla wax ci quran zi quwatin inda zil arsh makinin mutain thamma amin allahu akbar yàlla nee na ci man fa ma nekk waa ji di jibril grade bi mu fa takk mooy ku ñu jox confiance amin allahu akbar ku ñu jox kóolute kookoo doon ñaan kan moo doon wax amin xayru xalqillah muhammad ki nga xam ne xeet bi li yàlla bind moo ci gën kee xoolal ni mel mooy gën ci yoon malaaka yi kii moo gën ci mbindee yi kee di ñaan kii naan amin kan mooy nangu yàlla kon ñett ñooñu fuñ jëm yonent bi nee ne jibril nee na ñett ñi yàlla nañu alko yonent bi ne amin ñett ñi yàlla nañu alko yonent bi ne amin ñett ñi yàlla leen yàlla génn ci yërmandeem yonent bi ne amin kenn ki rek moo ñu yitteel yonent bi nee na jibril ñaanal na ku fekke weeru koor fekk fexewul yàlla baal ko kii yàlla na alko yonent bi ne amin waaw dëgg la parce que weeru koor weeru sell la weeru yërmande la weeru njëggal yonent bi nee na awaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa axiruhu itq min annaar fukki fan yu njëkk yi ñetti fukk la moo tax mu ne ayyaama maadudaat fan yu léew la fan yu ñu limité la nga la waay profitool nga la waay góorgóorlul bul yàq wala takunu kallati kallati naqatat naqadat ghasla kenn ci ñun fii bu la mayoon yére bi gën a cher ci yére yi ñi koy taaroo tey mu weex tal ñu jox la ci lépp mbax na chemise tubéy grand mbubb dàll def ko muy jasineer bu weex def ko jasineer moo gën a cher bi nga ko salee génn war a ñëw jumaa rek nga romb mécanicien yi rek daal di bërëngu ci huile bi ba taq rek daal di ñëw ci kilo ko may ne ko gis nga cuub naa ko kilo ko may lu muy wax ni kii mooy con ni kii dof la ni kii du nit loolu lay wax naka la la yàlla di indi la weeru koor mu fóot la ba nga set nga delluwaat ci ay caaxaan delluwaat ci fo delluwaat ci musique delluwaat ci cigarette delluwaat ci jigéen ñi delluwaat ci xale yu góor yi delluwaat ci delluwaat delluwaat li gën a garaaw nag mooy nga bàyyi jàkk mu nekk ni ñëpp a ngi normal jàkk ji day fees daal jumaa day fees daal même tafsir yi day fees guddi yi jumaa yi day fees jàkk yi day fees julli ñaa ngi ne coow xam na ne yàlla mooy dëgg waaye fii ndeysaan noonu weer wi génne woon tuuti bi weer wi génnee dafa tuuti gars yi di ko xool gisuñu ko julli di bari ñoom ñëpp taxaw di ko xool weer wi day dellu di sew ñooñu bëri woon doon ko xool di dellu di jeex ba moom mi sewoon mooy mujj ngand gaa yu bëri woon di ko xool ñooy mujj tuuti mooy ni ñu bëri ci jàkka ji léegi di buuxante démb dañu am suñu benn papa bu ñu invité woon ndogu mu ñëw ndogu mu ne ma fan yi du ma julli ji fajar sama kër laa julli ma ne ko subhanallah mu ne xejuma ci jàkka ji fan yi yëpp du ma dugg ci jàkka ji su ma ñëwee rek jàkka ji fees ci biti laa jullee mu ne léegi ma toog sama kër xoolal léegi ñi doon ñi doon dem jàkk mënatuñ dugg jàkk léegi lan mooy problème lan moo dal julli ñi ba weeru koor rek lañ bëgg a def jaamu yàlla wala sax ñenn ñi ñoo ñi baax ñi ñooy jaamu yàlla ci weeru koor ñeneen ñi seen yoon nekku ci parce que démb dégg ngeen rajo bi dugg Petersen di laaj borom restaurant yi waaw naka koor gi mbaa amul lu mu yàq ci seen dund seen jaay gaa yi ne ah benn jigéen ne man de li ma doon sóor ba léegi moom laay sóor ci weeru koor ci weeru koor yeneen bi alayhi salaatu salaam nee na yàlla yërëm na benn yahud yahud jullit yahud ndax weeru koor jullit ñi woor mu gis doomam di lekk ci kanamu jullit yi mu ñëw toroxal ko yóbbu ko kër ga corriger ko yonent bi ne yàlla yërëm na yahud boobu ndax loolu mu def jullit buy xotti xorma weeru koor nag lu ngeen ci xam jullit buy xotti xorma weeru koor yonent ne weeru koor weeru njëggal la awaluhu rahma kon war nañu ut yërmande yàlla ci weer yi mbokk yi ñun dañ ko aajowoo amul kenn ci ñun lu dul aajowoo na yërmande yàlla te yërmande kenn amu ko ku dul yàlla te yàlla rek moo koy def moo koy joxe keneen amu ko yàlla dong mooy borom yërmande subhanahu wa taala yàlla ne bu ngeen wooree ma yërëm leen te su ngeen bëggee ma yërëm leen irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama yërëm leen waa kaw suuf waa asamaan yërëm leen yonent bi neen arrahimuna yarhamuhum rahman ñi yërëmaate yàlla moo leen di yërëm mbokk yi yonent nee na ñetteelu weer wi fukk yi ci digg bi maghfira njéggal la moo tax yonent bi ne ku fekkee weeru koor te yàlla yërëmu la jéggalu la yow alku nga weeru koor nit warul def bàkkaar ndax ñiy def bàkkaar démb avant weeru koor dañ naan soo ko ne li nga def foo ko teg na seytaane ma tarxiis loo rek seytaane yeew nañ ko bu yàgg ba weeri feeñee la ñu yeew seytaane yonent moo ko wax sudifati shayatin yeew nañ ko bu yàgg léegi kon yow léegi lan mooy sa problème lan moo tax mënoo julli ji fajar jàkk lu tax mënoo julli ji tisbaar lu tax takkusaan lu tax timis lu tax gee lu tax wooroo lu tax ba léegi ngay sol col gu bon gi lu tax changé woo sa comportement dara changé wul ba léegi ni nga meloon nga mel lu tax ay laaj la yoo xam ne war nañ ko laaj sunu bopp ci yàlla fan yu gàtt yi munu jagleel mu ne ñu ayyaamam maadudaat ay fan la yu ñu lim ku am xel buy wax ak yow te ne la lii lu gàtt la te ne la lii bëriwul te ne la lii dafa tuuti wallahi bu doon xaalis la bu doon or la bu doon jamaa la ñu ubbi fenêtre bi ñu ubbi néeg bi dugal la ne la lii dee fi des bëriwul kon nag jël ci li nga mën a attan fekk muy or wala muy alal ñu ne la bëriwul waaye jëlal li nga mën mbokk yi kan ci ñun mooy desal foofu yaakaar naa bu la waaji ne lii fi des bëriwul da nga jël la fa jël la fa des yëpp da nga ko jël doo ci bàyyi fistin kon nan leen bàyyi xel suñu bopp yal na ñu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko alhamdulillahi waxda wala nacbudu gayra muxlisina lahu ddin walaw kariha alkafirun ibad allah قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إتق من النار yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na weeru koor ñetti xaaj la xaaj bu njëkk bi yërmande la ñette ñaareel bi ci digg bi njéggal la yonent nee na bi mujj bi fukki fan yu mujj yi mu ne itq min annaar dañuy goreel nit ñi safara bu fekkoon ne yàlla danoo nattu ndax sunu jikko yu ñaaw sunu bàkkaar yu bari sunu jàdd yoon sunu ñàkk koo jaamu ba mu jël sunuy tur bind ko ci liste ne ñun ñi safara lañ jëm yàlla def koor ñëw ñuy góor góorlu ba yegg ci fukki fan yu mujj yi war na nu fexee ñu jël gom ñu gome sunu tur yooyu nit dana koor koor goo xam ne su fekkoon ne turam a ngi ci liste boobu mu wokk ci waa safara wallahi dinañ gome tur boobu waaye loolu ku ko bëgg a def ku bëgg ñu gome sa tur loolu tëdd di nelaw du ko maye loolu dafa laaj yitte loolu dafa laaj pas-pas loolu dafa laaj góor góorlu mbokk yi kenn ci ñun su ko président de la république boole woon ak ñaari gendarme ne ko weer wi boo jubee xocc waaye gars yi ñoo lay contrôler soo jubee defoo fi dara lu bon ak lu ñaaw su weer wi di jeex rek ma lay nommé ministre kan ci ñun fi mooy dëng kan ci ñun fi moo dul jub kan ci ñun fi mooy jàdd mooy wane mooy wane garde corps yi koy garde moo leen di won ak mbon waa ji dina contrôler boppam di contrôler boppam ba ay wax sax boo moytu sax waa ji dafay jaar bàyyi wax suy wax nii lay def ndax lan ndax bëgg ñooñu defal ko benn CV boo xamante ne dañ ne waa ji kii ku jub la yàllaa ngi ñu boole ay malaayika ñu tudd raqib ak atid yàlla wax leen ci alquran ne maa yalfizu min qawlin illa laday raqib atid yàlla waxaan ne kiraman katibin yaalamuna ma tafaluun maa ngi leen booleeg ñaar su ngeen di dox kii ci kanam kii ci ginnaaw su ngeen toogee kii ndeyjoor kii càmmoñ bu ngeen tëddee kii ci bopp bi kii ci tànk yi lu ngeen wax ñu bind ko bu ngeen wax rek li may xutba ni ñu ngi koy bind am ak indi sax dañ koy bind bi yonent bi waxee sahaaba bi laajee yonent bi ne ko yonent am ak indi dañ koy bind mu ne yal na la sa yaay ñàkk sakalat ka ummuk yal na la sa yaay ñàkk xanaa xamoo am ak indi sax dañ koy bind lii nga wax nii sax bind nañ ko ah suñ ñu booleeg ñu mel noonu ñu nekk ci weeru koor weer wu sell ni weer wi sellee nga xam ne boo jaamoo boo jullee benn farata ñaari tiyaaba ngay am benn vendredi bi nga julli ñaari vendredi lan lay fay nga julli benn farata tisbaar ñu fay la ko ñaar parce que promotion la munafasa fil xayraat dañu war a profité moo tax ci weer wi yonent bi alayhi salaatu salaam ne ubbi nañ buntu mbaax yi malaaka taxaw na naan yaa baaxiyal xayr aqbil e yow mi bëgg lu baax waaye ñëwal waay avanceel bul yox yoxi waaye yow def katu bon lu bon li teel sa loxo taxawal bul bouger maanaam bul defati lu bon kon mbokk yi fan yi dafa néew ayaamam maadudaat bu nu yàq suñuy bëccëg bu nu yàq suñuy guddi bu nu yàq suñu weer nanu góor góorlu ba weer wi bu jeexee formation bii ñuy def ñu mën a sax man cee lan ñu mën a continuer ñu mën a génn ci école boobu tudd weeru koor ñu mën cee génne diplôme mu taqwa li tax ñuy woor yëpp du lenn lu dul pour ñu mun a am ragal yàlla yàlla loolu la ñu wax ci aaya bi laallakum tattaquun pour ngeen mën a génn ci weeru koor ngeen am diplôme ragal yàlla weeru koor garab la ki toog ci garab keppaaru garab weeru koor nga toog ci weeru yàlla nga toog ci keppaar gi bu boo jógee ci garab gi nga buuse war nañ suñ la laajee ne la waaw garab gi doom yi lu muy saf war ngaa wax buñ la laajee keppaar gi nu mu mel war nga koo wax xoola ki fekkee weeru koor ba weeru jeex woorul benn fan da ngay jaar ci mbedd yi gis xale yu góor yi ak seen cigarette yi amuñu sax kersa gis xale yu jigéen yi ak col gu bon gi nga romb yenn kër yi dégg musique yi ah ay xale yu góor ak yu jigéen di fa organiser ay mbaxal ci bëccëgu weeru koor nañ xeetaat suñu bopp bëri na jullit yi lu ñuy wax tey ci àddina bi ni mu mel ci seen réew ni mu mel ci seen kër yi ni ñu mel ñoom ñoo ko liggéey ci seen bopp ndax lu bon yàlla amu ko foog ñu delluwaat profitoo ci weer wi yaraat suñuy bopp yaraat suñu njaboot góorgóorlu saaba yi dañ doon woor di woorloo seen njaboot dee ngeen ñu ne fukki fan yi mujj ci weeru koor yonent bi alayhi salaam bokk na ci lu muy def day takk tubéyam sadda mizara wa ayqaza ahla wa ahya layla day takk tubéyam yeewaa këram ñu dundal guddi gi waaw yeewaa këram waxuñu moom kenn mu dem di dundal guddi gi de guddi gi jot nga gàddu sa sijaad ak sa kurus jëm jàkk nga bàyyi say doom di xumbal li nga liggéey ban njëriñ la am jarul yow ngay julli ji parce que yawmal qiyaam wallahi doo romb gone yooyu doo romb soxna soosu jéggi leen dem aljanna mukk ci àdduna soo nee tëpp ñu topp la ah yaa doon sunu kilifa de yàlla ne waqifuhum innahum mas'uluun téye leen ko mu taxaw dañ koy laaj jabar ji ñëw ne ko yow yaa doon dem julli ji ñun soo ñoo yee doom yi ñoo ne dëgg la kay papa mu soo ñoo wax muurul da ñu doon bàyyi ñuy xàppati di xóotal di paccal di dangal yaa doon jënd jiini sax nag nga am problème moo tax yeneen ne dayuus du dugg àjjana laa yadxulul janna dayuus wa qila ya rasulallah man huwa dayuus qaala alladi yarda alxubusu fi ahli borom kër guy seetaan sa njaboot di def lu bon yonent bi nee na doo dugg àjjana beneen riwaaya bi mu ne allazi yaqiru suu fi ahli ki nga xam ne day saxal lu bon ci biir kër gi benn borom xam-xam nee na démb diine borom kër gu dégg musique sa biir kër yat ngay jël ne fay leen ko mu ne tey da ngay gis waa ji yor kurus ne Moodu mu ne ah mu ne wàññil wàññil kenn dootul wax fayal léegi wàññil la ñuy wax wàññil fuñ jëm allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna ala tibaai wa arina albatila batilan warzuqna ala cinabi اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله